daayira Touba ca kanam nooru daare ni journée de solidarité bi nga xam ne ñu ngi ko doon amal ci biir weeru koor gi mu nekk bés boo xam ne ni ñu ko amalee daaw noonu la lañ ko amalee waat ren ñu jébbal lu ëppul ñeenti téeméeri fami ndimbalu takkoo takk loo xam ne biñ ko évaluer ci suñuy koppar toll na ci fukki million ak juróom benn yu teg loolu lépp nag ngir jàppale ñi nga xam ne seen loxo jotul seen i ginnaaw ci bërëbu sell bi di Touba ngir ñu mën a amal li nga xam ne moo di koor gi waaye tamit li nga xam ne moo jëm ci korité gi ñu dënmal loole lépp ñu mën koo amal ni ki mbokk euh, jullit yëpp ñoo ànd teewlu reportage bi nga xam ne defal nañ leen ko ci. daayira Touba ca kanam nooru daare nii niñ ko amalee woon daaw ci biir weeru koor gi amalaat nañ ko ren lu toll ci ñeenti téeméeri famille yoo xam ne jébbal nañ leen ak ndimbal muy ceeb diwlin tàndarma ay yére ba ci yeneen jumtukaay yoo xam ne dañ ko jébbal ñi nga xamante ni waaye laago lañu. buñ leen taxawuwut lañ naroon a jëndee ay yére ngir man koo sol mën naa am ñu def ko ci seen dund moo tax jël waajal nañ ñeenti téeméeri yére yoo xam ne nii képp ku ñu ni ndimbal yooyu dañu si boole ab yére boo xam ne ko mën a sol ci ci korite gi allah ñi nga xam ne seen loxo jotu seen ginnaaw rawatina ñi seen cër wàññeeku ndax ñun ñëpp ay handicapé lañ euh, beral nañ leen fii ñeent fukki euh, fukki sees roulant ak juróom incha allah ak fukki sees fukki beeke ak juróom yoo xam ne fas nañu koy séddale am na tamit benn orphelinat boo xam ne nii gone yi nga xam ne nii seen i waajur xamuñu leen noonu lan dajale fii tudd ñu tudd ko orphelinat Maam Jaara bokk na ci li nga xam ne moom lañ leen fas yéene taxaw daaw joxoon nañ leen cinquante deux cent mille yoo xam ne nii ñu ngi ñu ngi leen fas yéene jox trois cent mille incha allah ba jox nañ leen ko nag fas nañ yéene tamit am duñ barkeeloo ci yi nga xam ne nii ñi nga xam ne seen kër taxu ko demee noonu te ñu ñëw ci jumaa ji. mboolem ndimbal yi nga xam ne moom lañ jébbal ñi nga xam ne seen loxo jotul seen i ginnaaw ci Touba Mbacké ñu ngi ko xayma ci fukki million ak juróom benn ci suñu koppar yu teg mu yokk lool buñ ko méngaleeg at mi weesu. global bi moom naqari naa xam ndax démb yaakaar naa li ci ëpp ci journée bi defoon nañ ko te bin bin évalué démb rek lu toll ak tase woon na fi. te yaakaar naa bi ñu génnee fere yi war a def yëpp ba noppi lu tolloo 4 millions loolu nag buñ ci boolee yi ñëwaat tey yi nga xam ne sóoraale woo koon ak ñi nga xam ne ci ba biir mbaar mi rek li fi dajee ci xaalis ëpp na 2 millions et kon loolu lépp buñ ko boolee xam naa dana naqaree xayma waaye minimum gën ngaa néew moom li ñu am ci social bi dana ëpp 16 millions te année bii weesu yaakaar naa li ñu amoon lépp bi ñu defee fere yeeg yëpp 6 woon du benn dërëm boo xam ne bàyyeekoo na ci ñaar téeméer yi nga xam ne taalibe muridi moom la ñuy cotiser waaye ndimbal gi mi ngi bàyyeekoo ci bon volonté yi ba ci xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké Bachir joxe na ci. loolu lépp nag benn dërëm bu ci duggee ci ñaar téeméer yi nga xam ne moom la laaj murid bu nekk ci weer wu nekk amu ci lépp ab jaayante lay doon boo xam ne chaque weer rek ñun bokk taalibe yi nekk membre Touba Ca Kanam ak ñi nga xam ne nii lu baax ñoom ku nekk day yëkkati aw ñaqam def ko ci beneen ji ñu am tawfeex yi Cheikh Mamadou mi nga xam ne fi nekkal Serigne Touba moo moo moo moo jiitu ci bi ndax ma demee di ko leeral la ma wax ne man nañ ko tuddee gën a yeesal def ci jëf joo xam ne nii jëf ju koy jot la. daayira ca kanam seen yéene ci bërëbu sell bii di tubaa su weesoo infrastructure yi nga xam ne ñu ngi ko fiy liggéey. dañuy taxaw bu baax ci social bi waaye it bëgg nañu taxawal benn mutuelle de santé boo xamante nii dañuy jàppale taalibe yi ci faju waaye it taxawal benn fonds boo xam ne dafa jëm ci wàllum asaka di ko ci dajale di ci dimbala ñoo xamante ni buñ demee at daañu mën a dimbale ñeneen. mu nekk leeral bi nga xam ne defal nañ leen ko mu bàyyeekoo ci journée de solidarité bi waa daayira Touba ca kanam Noor Daara ni doon amal ci mbaaru Daara Xuddoos bi. ba léegi mbokk yi ci xibaar yi université Cheikhul Khadim maanaam complexe universitaire bi nga xam ne Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké Bachir moom la bëgg a taxawal fii ci Touba Mbacké amal nañ benn lël boo xam ne dañ koo jagleeloon li jëm ci wàllum bibliothèque bi nga xam ne moo war a nekk ci université bi ba tax na ay bibliothécaires yoo xam ne dañoo bàyyeekoo ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar ak ñu bàyyeekoo ci université Gaston Berger ak Saint ak université bu Bambey ak yeneen université yoo xam ne yu nekk bitim réew ñoom ñëpp ñu ñëw dajaloo fii ci Touba Mbacké waxtaan ci li nga xam ne moo jëm ci bibliothèque boobu ak ni nga xam ne noonu lañ ko fas yéene doxalee loolee ginnaaw waxtaan wi am na ay yoo xamante ni professeur Mor Faye bokk ci commission enseignement supérieur bu complexe Cheikhul Khadim yëkkati na ko mu jëm ci li nga xam ne moo jëm ci bibliothèque gu Cheikhul Khadim boobu ñu ànd teew lay kàddoom. mooy naal yi nga xam ne nii yi gën a am njëriñ ci complexe bi la ndaxte xam ci ginnaaw. bu ngeen fàttalikoo defoon na ay naal yu am solo lool ay lël yu am solo lool lël yooyu nag li ko taxoon a jóg mooy wax ci affaire administration parce que tamit ab complexe daa am na ay ay loo xam ne moo ko lal te règlements am na tamit ay programme yoo xam ne nii war nañ ko def ak yeneen yeneen yeneen yoo xam ne ay naal la yoo xam ne nii mooy li nga xam ne mooy sos daal complexe bi naal bii ñu amaloon nag tey ak danaka tay ak spécialiste yi moy nal bu jëm ci bibliothèque bi parce que bibliothèque euh, man nañu wax dal moy xolu complexe bi ndaxte kuy jang, fo nga yorub téré jang ay téré ñoy ay jang ñi jangalé ay téré ci ne sukkandiku jang ñi jangal ba pay tamit buñ bëgg a li leen jangal dañu xol ay téré bu jóge tamit euh, ci réew mi wala bitim réew ñew ci complexe bi tamit li nga ñëk def moy dem ci fa téré nekk pour nga gëstu fa moo tax day nal boo xam ne daal naal bu amoon solo la pour def daay kaamil joo xam ne ci biir complexe bi day méngoo ak euh, li nga xam ne nii moom la ko sëñ bi bëggee sëñ Muntaxa mooy liggéey bi nga xam ne nii sëñ Muntaxa moo ko jox sëñ Ahmad Badawi ni mu ko bëggee donc mooy def loo xam ne na jëmmal complexe bi te université nag mooy mooy mooy complexe bi ndaxte bu nga demee ci yenn dëkk yëpp buñ ne université sangam dañuy njëkk a xool mooy bibliothèque am donc loolu nag lañ nekkoon ci liggéey euh, ñi nga xam nag ñooy doon liggéey ci ñun mooy ñi nga xam ni dañoo ci université bibliothèque euh, Cheikh Anta Gaston Berger euh, Bambey nañ ak direction des archives nationales ak yeneen association des bibliothécaires du Sénégal ak ñëpp ñoo xam une affaire bibliothécaire di ci documentation ak yeneen activité ñoo lëkkaloog ñi nga xam ne mooy waa tuuba ndaxte waa Touba tamit ñoom tamit yàgg na ñoom ay daare kaamil sëñ Moustapha Gatta mi ngi nii am na tamit sëñ Moustapha Dieng ak sëñ Mokhtar Seck jóge Daaru ñu ñu dajaloo nag ci benn bërëb teyoo tey di waxtaan pour que bibliothèque bi nga xam ne mën nañu defar ci complexe bi nekk loo xam ne day day méngoog jamono. mu nekkoon kàddu yi professeur Mor Faye doon ñëwaat rek ci li nga xam ne moo di bibliothèque biñ bëgg a def ci université Cheikhul Khadim bi. ba léegi ci fànn googu la ñuy des sax ginnaaw euh, seenu lël googu ñoom demoon nañ ci xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké Bachir doon ko gaaral li nga xam ne moom lañ tënk waxtaan mu jëm rek ci liggéey boobu mu nekk lool Serigne bi rafetlu na ko lool ñaanal leen waaye rafet lu baax yéene bi nga xam ne am nañ ko ngir ànd ak moom liggéeyal Cheikhul Khadim bi rawatina complexe bi nga xam ne moom la ñuy taxawal fii nii ci Touba Mbacké ñu ànd teewlu kàddu yi xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké Bachir. ci itte ji bu baax a baax dolli na suñu lool. nee mmh. eh, di dolli yaakaaram lool. gën a dalal suñu di gën a dalal xelam ci li ñu jëm. taxawaay bi eh, gis naa ko bu baax a baax a baax. taxawaay bi gis na ko bu baax a baax a eh, taxawaay rek moo mënta ñàkk. taxawaay rek moo mënta ñàkk. waaye moo jafe nag. waaye nag moo jafe. am nan am nan ko ci yéen nag. nee gannaaw am nan ko ci yéen nag. sunu xel dal na bu baax a baax a baax sunu xel sedd na bu baax. nee na ñoo ngi koy fas yéene ànd ak yéen rek. muy muy liggéey bu rëy bu am njariñ kon nag mu ngi noonu rek. ñun ñëpp nañ gën a yokk suñu itte. gën cee jublu bu baax a baax gën cee jublu bu baax a baax. def ci suñu kem kàttan. def ci suñu kem kàttan. buñ ko defee rek la ci dess am nañ yaqin ne danañ ñu ci gàttalu. bañ yóbbu ko fañ ko bëgg bañ yobbu ko fañ ko bëgg a mu nekkon kaddu yi nga xamne Serigne muntaha mbake bashir yëkkati nako mu jëm rek ci euh, ziar bi nga xamne euh, kilifa yi mu dénk université bi ci njitalu Serigne Ahmadou Badawi ak yeneeni professeur professeur ak ay universitaire ak ay bibliothécaire doon nañ ko amul fii ci tubaa doon waxtaan rek lu jëm ci bibliothèque bi nga xam ne moom lañ bëgg taxawal ci complexe Cheikhul Khadim bi. mbokk yi ba léegi ci xibaar gi ñuy waajal euh, li nga xam ne moo di laylatul xadr fii ci Touba Mbacké ni nga xam ne noonu la ko soxna Maymunatu Mbacké daan amalee ñu koy waajal bu baax a baax ci dëkk bu sell bii di tubaa ba tax na tàmbali nañ conférence yi nga xam ne ñu ngi koy amal ci këram gi nekk ci Touba mosquée ci njiitalu njabootam gi di sëriñ euh, ki nga xam ne moom di sëriñ Abdoulaye Mbacke Gaynde Fatma ak mbooleem euh, waa kër gi ñu amaloon nag waxtaan woo xam ne dañoo tànnoon thème am solo moo di code de la famille li weesu li nga xam ne moom moo nekk suñu kanam nan la ñuy def ba gën koo méngaleeg li nga xam ne moom moo di sunub diine di waxtaan woo xam ne ay professeur ay boromi xam-xam seq nañ ko waaye jukki nañ ci lenn loo xamante ni dafa bàyyeekoo ci professeur Fat bi nga xam ne sociologue la jàngataat bu baax a baax li nga xam ne moo jëm ci code de la famille bu Sénégal ñu ànd teewlu ay kàddoom. processus bi bi ñuy am indépendance dañu amoon juróom-ñeent ñaar fukk ak juróom-ñeenti sàrt yu tënkoon Sénégal mënuñu construire benn société ni dañuy dem jëmukaay ba pare juróom-ñaar fukk 79 ak juróom-ñeentu askan bu nekk ni may ak si sama acte laay acte donc objectif moo doon naka la ñuy fexe ba am benn charte boo xam ni nit ñi ku nekk dañ si gis sa bopp ay commission teg nañ leen dëgg la du ñu dellu si parce que dañuy gàttal bi ñu demee ba war kon adopté assemblée nationale këru diine yi dañu waroo loolu lañu ñun man li may wax du sama wax li ma gis ci gëstu ñëpp ñu woon loolu moo tax Senghor toog nañu ba jóg ñu boobu contestation

si monde rural bi appelé wuñ ko ko mais moom moo ci fes ni moom appliqué wul kon waxuñu ko woon bi ñu demee ba beneen crise am mooy Abdou Diouf Ablaye Wade kii jóge fi Senghor Abdou Diouf ñëw ñu profité wu si dix ans yi ñu ne dañ koy remettre en question jàllul si diggante bi am na ay mouvement wu jigéen yu jóg comme yeewu yeew yi am lu ñu doon xeex comme affaire polygamie moo ci gën a fës ñu dem ba 2000 bi nga xamee ne Ablaye Wade moo toog ñoom maam Imam Mbaye Niang ñi jóg nañu SIRCOP ni ñoom tam dañuy proposer code de statut personnel Ablaye Wade ni leen ah Senghor def ko fi kenn laalu ko Abdou Diouf def ko fi kenn laalu ko man ngeen yàpp moo tax ngeen mu ko def loolu mooy waxu Ablaye Wade li am ba am moo ni pourquoi war nañ ci waxtaan.

code bi li ñu wax ni valeur dafa am importance ci une société dëgg la Napoléon Bonaparte moo ko tëgg en 1804 te juróom-ñaar fukki réew ak benn ci àddina bi inspiré wu nañu ci code bi Égypte sa la bokk donc ñun effectivement suñu dépendance comme colonie tax na comme pays yi ko nekkoon francophone yëpp te dinaa du rek francophone même États-Unis d'Amérique

parce que sénégalais bu dee ñoom jullit lu ñuy wuti ci lu leen tere dem attewu ji ci li nga xam ni loolu lañ gëm kon war nañ jamaat éducation ak sénégalais ci seen bopp lan mooy seen propre conviction. mu nekkoon kàddu yi professeur Fassar Sow ci conférence bi nga xam ne moom lañ doon amal ci kër Serigne Cheikh Abdoulaye Mbacké Gaïndé Fatma ci kër Soxna Bali gi nga xam ne moo nekkee ci Touba mosquée gi di waajal laylatul xadr gi. mbokki yi dañuy tàggoog yéen ci xibaari tay ji ak kurel 1 bu daara Hizbut Tarqiyyah ci njàng mu am solo mi nga xamne amal nañ ko fi ci résidence Khadim Rasoul ni nga xamne non lañ ko ande ak Serigne Mountakha mbake bashir mu jëm ci ni nga xamne non lay dundalee wër koor gi fi ci Touba mbake ci tewayu kilifa yu bëree bëri sant leen gërëm leen ci tewlu gi dig leen dajje ëlëk inshallah ci yeneen xibaar wa salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu ande kurel 1 bu daara Hizbut Tarqiyyah مدادي وقلمي وكل زوارا Lazim

خير خطابا عزيزا لا